bonjour à tous j'espère que vous allez bien ñoo leen di di leen ziar di leen ñaanal jàmm di leen baalu xaq di leen dalalaat tey fii seen émission bii di gis-gis ànd ko ak 28 Pro. di ñëw si question du jour bi te mooy lan moo tax jeunes yu bari tey bu ñu nekkee si yoon ñu leen di gis ñuy def naka su dul noonu waaw te ñuy ay doomu jullit ñu leen di gis ci ay milliers de fréquentation yoo xamante ni baaxoowuñ fa di fa gis doomu jullit waaw ba ñuy dem sax bay def naka su noonu. waaw damay wax ni waaw gis-gis bi ma si am rek mooy que waaw nit ki booy àndal da ngay ànd ak koo xamante ni waaw dafa baax waaw ànd ak ku baax dafa am solo ba tax na damay faral di wax ni tubaab bi ah, nekk gi ñu nekk ci suñu biir moo tax tey ñu mel noonu waaw fréquentation dafa am solo si doomu aadama waaw damay wax ni am na ñoo xamante ni fréquentation bu bari jigu leen waaw parce que dañuy gaaw adopté bari waa na nit ki ci li muy dugg waaw lu si bari ci ay jafe-jafe wala ci naka su dul noonu waaw ay fréquentation moo ko si dugal waaw ba tax na nit ki war naa mën a xool bu baax ku muy àndal waaw mais nag damay wax ne bu ñu delluwaatee woon ca mag ña waaw mag ñi dañuy gis ni li ñu gën a jàngal li ñu njëkk a jàngal en première mooy que waaw ak yar akut teggin waaw ba tax na doomu aadama bu nekkee ci yoon surtout jeune waaw dafay bëri ay gàllankoor yoo xamante ni waaw daf koy day nekk ci yoonam waaw ba tax na waaw bu amee yar akub teggin rek suñu borom mën na ko jàppale ba dimbali ko si loolu waaw ba tax na doomu aadama fu mu tool dafa war a de ànd ak ab xelam waaw dañuy wax ni c'est la chose important que Dieu nous nit ki bu génnee am xelam ci moom rek doonatul nit kooku bàyyi ma la doomu aadama bi fu mu toll rek dafa war a ànd ak ak état d'esprit bu normal waaw damay faral di wax ne nit ki bu amee lu ko yàlla may lu nekk ci moom lu ñuy woowee don naturel waaw bu ànd ak yar akub teggin rek man bëgguma état d'esprit mooy lépp waaw waaw le succès est un état d'esprit waaw contrairement à ce que pense la majorité des personnes waaw waaw avoir des rêves n'est pas la partie le plus important de votre processus waaw loolu nag soo ko waxee ñu bëri ñu d'accord ak yow vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous pouvez avoir tous les rêves que vous voulez waaw vous pouvez utiliser tous les moyens à votre disponibilité mais si vous n'avez pas le bon état d'esprit rek vous essuyez waaw c'est une moo tax doomu aadama bi fu mu toll rek waaw dafa war a ànd ak ak xel mu waaw ak xel mu dal war du jëfee jëfu maa tey waaw dañuy wax ni yàlla ibil na port waaw ibil na bunt képp koo xamante ni bëgg na jub rek ak jubal waaw il suffit nga xam bunt boobu noonu rek pour tegu ca yoon ba di ñaan sama mbokk yi surtout jeunesse bi waaw ñu ànd ak yar akub teggin parce que loolu boo ko amee rek yàlla mën na la jàppale ñu leen nuyu di leen ñaanal di leen jox daje seen beneen émission incha allah